tabaski bi bu baax hmm, man de sëba laay laal ma déggal ma man de sama mbaraan bi laay ñëw woo mu yónnee ma ma préparé sama tabaski bu baax waaw xale bu ndaw talo sa jàng naan mbaraan yow yow daal nekkee fi ni nee nga lu ma wax rek nga ne xale la ah doo xale ah xale la loolu ngeen foog toog moo taxit toog leen di ngeen yàgg rek seen yaay yi di leen jox. seen yaay waxal kay suñu yaay mais bul wax seen yaay. en parlant de suñu yaay sax yéen démb waxtaan bi suñu papa yi loo leen loo leen si dàq loo leen dàq ah lu tax ba duñ dàqoon waxu yaay da moom ak pap waaw la sant. yow léegi loo bëgg ñu def sama papa lu mu wax ñu teggi ko teg ko fële. moo ma jaaxal. 4 mois moo ngi nii liggéeyu xam nga ne dëkk bi daa am feebar corona bi yaa ma gën a xam daaw daf ñu daan jox ku nekk dangay sañse ba bëgg. ren amul ko dañ tok mo ngi rek xaar bu do voilà tabaski ben jour la day passé te après tabaski xala tolu papa wala def li mi ngi ni courant ndox suñu jang fourniture lepp tamit yow tamit hmm. te bul faté nak ñetti jigen la yor ah. ay doog a comparable nag mag nit taxu nga upp ko xel yeen amo len ben xalaat bo xamni ñun mën nañ ja mën nañ tabaski comme nit ñi ni tabaski wé ah ban xalaat xalaat leen rek ah man de benn xalaat laa am mooy dem sam sama bàjjen ko wax ko mu jàppale ñu. bàjjen waaw ban bàjjen ñaata bàjjen nga am ah bàjjen am na suñu situation te musul ñëw taxawuñu loolu tamit war nga ko xalaat. bàyyi leen rek ma dem lu ma ci munti jëlee rek dinaa leen ko. waaw kon loolu la man de amoon naa benn idée mooy. ma dem jëli sama siwo gaat ko dem jaaye ndox suba ak ngor lolé man moy sama idée ah, yeen ñaar yeen ñaar seen idée baax na wante man sama idée moy bind lettre dem def demande mairie mairie waw ndax mairie muy tabaski di korité han ah, di pat di gam di màggal han ah. lo fo bo bindé lettre rek dinañ la jappalé ñu dem ma dem fa man def ko sama demande jàppale ma. ah loolu de père su ko yëgee na kontaan. man sax aw ba toogaay man. maa ngi jóg li jënd sama lettre bi. man damay tëgg fii rek rek jóg. di jël xare ba ca cuccur ku fa yóbbu buum jarka ca lañ la yeew sambay bayaane ma ne wuy ma alburé nga dooso buróom pennaa nga ngën a leen ma Fatima Njaay ma Isa ma Njaay seen maam ma nga dooso xolal dama ne yéen bu ngeen sañcee war ngeen a sañce ndax yéen yéen réew mi képp ku fi am baat yéen a ko may baat te seen maam ku ne xam na ni mooy alburé ba jolof maree naan buuna njaay la yabal na ko bënnal teen sama maam mii sax ci la doon naan kon yéen lu ngeen def war ngeen koo def ngeen sañ se nii ba yànj di ma saf kaaba ga lañ ko wërale xam ngeen ni naat ngeen de naat ngeen ni ne naat waaw fu ngeen jëm nii ak seen i sañse déggal loolu yéen bu ngeen génnee rek war ngeen a génn ndax ku am lu mu sol bu la neexee doxal ba ci bopp koñ bi dëbb si beeku sol leneen te yéen seen maam par minute naan sañse te saa yu mësee mer toj na doon

Youssou demul Bercy concert amul yàlla du dama ne dama ne ñëwal moom bu tëj ñun ku ne xam na ñun yàlla la yaakaar dégg ñun du ñu tëj ñun corona demba naa lañ yemale suñu baat bi lañ yor di ko dundee est yaa may dégg. mané ne ngeen def ak yi man na ngeen daan def ak man. xoolal man déglu leen ma rek man géwélu noobul laa man ko. téeméer téeméer ci mag mu tol ni man yéen xam ngeen ne seen mam tojul fenn de seen mam tuyoo bu toj sax mënu koo bënn ngeen naan ma ay ak sen mam maam tojut fenn la la wax kok muy melni ñu sañse sen ñag yi tàngaay dina len ray de dem len rek fu ngeen dem defa de may wax ki di melni istil wënd xolal ke xam nga neen bokku len ci rew mi de bokku len ci rew mi de xolal ke yow ku la xool xam sénégalais astafurla sénégalais yow ku la rek xamne do doo sénégalais ngay melni ki ñoñu ñooñu dëkk ci ci rew ki ya xuuxu pays des xuuxu cim nyaku jom ha mujjee ngeen puso bi mu réer de nyaku jom bay ba gadé dee téméri nak duma len ka ma dina len khas ba ngeen rap sen papa ni la ma sa mel ba muy nek France sax bu ñëwee ay ay sijaade la lay indi ak ay dara nay ba dé guer mel ni musuma koo gis nyaku jom fi ngeen jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm yàlla ngeen ak yiwu yalla yiwu yalla jëm ni ngeen kontere ko nyaku jom fit sé dans l'ensemble waaw kay